li waxaloo ndaje bi tey mooy que ñun ay ndaw lañ yu def formation en pêche et en aquaculture génnee ci différentes écoles de formation en pêche et aquaculture dañu nekk ay ndaw ñu recruter ñu comme des comme ay stagiaires contractuels affecté ñu sur affecté ñu ci département Sénégal yëpp pour ñu combler manqué bi nga xamante ni secteur pêche manqué na ko pour ñoŋal lii liggéey bi lié ci pêche tey jii nag dañu toog 4 mois sans ñu fay ñu suñu indemnité de transport li nga xamante ne ci loolu lañ doon sàkkandiku pour liggéeyi pour lekk ci ñi ci ñi nga xamante ne pour louer ci ay chambre ci ñi nga xamante ne affecté wuñu leen euh, euh, Dakar ay ville yooyu noonu et aussi di ci jàppale suñu famille ñun ay soutien ay mère et père de famille lañ pour la plus plupart si ñun donc si suñu euh, indemnité yooyu rek lañu yaakaar pour dund ci et liggéey li nga xamante ni moo tax ñu recruter ñu si loolu nag ñi ngi tàllal loxo gouvernement bi di ko jaarale si madame euh, la ministre mi nga xamante ni moom moo géré wàllum pêche di ko wax que ni euh, euh, ñi ngi ñaan suñu situation yu métti yi ñu nekk mu lijjanti ko dans les meilleurs délais et di ko ñaan aussi audience pour ñu gën a mën a toog waxtaan ñi ngi ñaan aussi Euh, ñu ñu recruter ñu au niveau de la fonction publique parce que suñu contrat bi day jeex le trente mai bi le trente juin bii di ñëw incha allah. ay ndaw lañ ay ndaw yoo xamante ne dañoo sélectionné ci base si suñuy note ak suñu yaru suñu discipline bi ñuy wane si suñu école de formation yi lépp bépp combat bu ñuy def dinañ ko teg ci yoon teg ko ci respect teg ko ci teg ko ci euh, benn esprit d'équipe boo xamante ni tey jii lépp bépp fépp fu ñu mënti dem dinañ xam ni duñu ñàkk suñu crédibilité euh, ci envers ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy supérieur. Euh, l'an 2022 en s'inspirant du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes le ministère des pêches et de l'économie maritime d'alors a lancé le recrutement de jeunes de son département pour pallier au manque criare du secteur en personnel. Une commission a été mise en place pour l'enrôlement de 100 jeunes meilleurs diplômés des écoles et instituts de formation liés à la pêche. Ces jeunes sont des ingénieurs, des agents techniques, des techniciens supérieurs, des informaticiens, des agents administratifs et jouent un rôle central et cardinal pour l'atteinte des objectifs mentionnés dans la lettre de politique sectorielle pour le développement de la pêche et de l'aquaculture. Depuis le mois de janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui, ces contracteurs stagiaires peinent à recevoir leurs 4 mois de pécule, leurs indemnités de stage. Donc nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités actuelles installées de faire une de leurs priorités le paiement immédiat des indemnités de stage. à l'actuel ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Et nous la, nous la la main pour qu'elle puisse nous recevoir afin de discuter en profondeur les différentes préoccupations des contrats stagiaires. Nous, nous ne restons pas les bras croisés. Nous allons mener le combat, mais dans la démarche la plus simple possible.